ci sa ginnaaw ndax Boucher day dem màggal kooku dama dof. yow ñi di ñan lañ. ay dof. ku may laaj ku may képp ku may laaj ndax dangay màggali mooy dof nga ab dof nga. mais li nga léegi lan ngay wàcc màggal gi. màggal gi pare nañu. waa li mu waajati waaw li ñu waajat li nga waaw safar gi yéen a fi bàyyi woon tey jii laay takk jóg. maa ngi nii di dem tekki Serigne Touba daal daf maa tekki loo oto suba incha allah moom lay dem suba incha allah rabbi am na lu ma ci doon dégg waaw borom ñeenti oto yeeg borom benn oto yi waaw Serigne ah màggali na kooku Serigne Touba rek la gëm ana Omar Mbaye ma nga siin di indi bagage yi ñu war a màggali ana Pape fi ana

fan yi gis naan comme coow yi am waaye boo yeeg interview yi mu ne am na ci ñoo xamante considéré wu leen parce que ay saraxam sax mën naa mën na leen a fay ñu bëri. waaw kii moom taalibe sëñ Tuubaa la. waaw xoolal carrière Balla Gaye 2. Ah, carrière am. ku ko wax wax lu ñaaw sukk nga cay tànkam. loolu am xoolal. ku ko wax wax dara tuub si nga. te barke sëriñ Touba Mbacke Xaadimu Rasuul kii ku ko yab say doom yab la. dëgg ndax ndax ko jagleel loolu. ndax xol bi dara newu ci kii kenn waru ko wax lu ñaaw. xale bu ci réew ba yabaate ba di ko wax dara. say doom dinañ la ko def. loolu force ba. yow gone yooyu ñan lañ. xawuma de. ci réew mi lañ ne. non xawuma mais loo xalaat loo xalaat ne moo tax ñoom ñuy def sorti yooyu te dëgg non dañoo réew xam nga nit ki di nga bëgg tur. te doo xam foo koy jaar. léegi foog nga yàq as pour nit ñi bàyyi la xel ndax nit ki booy yàq golo kenn du la bàyyi xel booy yàq ku tekkiwul dara kenn du la bàyyi xel waaye booy yàq as nit ñi dañu lay bàyyi xel ndax gor soo soo ko jar léegi nag fa lañ koy jaaree waaw mais mais est-ce que des fois doo doo doo xalaat na ñoom li ñuy wax dañoo téye ay preuve di wax. leen ba pare yéen ñii sax yéen a goofale boo leen <laughs> ngeen di laaj ci nit nit da ngeen di laaj nit ku am valeur nit ku tekki dara nit ku nite ah, da ngeen di bàyyi leen seen ngeen man ay ndigal ak ñoom ñëpp dama leen a mere ay ndigal ak ñoom ñëpp laa mere ah mais tey nag ñoom wax ñoom it wax nañ non man dama leen ñoom ñëpp laa mere ay macca ak ñëpp parce que du nit booy tontu da ngay tontu ku ko jar wala da ngay tontu ku la mën a yëngal non non jaru ko yooyu bu leen ko def yooyu bu leen ko def yooyu dama leen mere ñoom ñëpp waaw yooyu yëpp waaw boo abu CFA la. <laughs> non abu day day abu. abu day defar mooy borom montage yi leen di di di ko di boo leen di boo leen di boo leen di wax ci ku amul njëriñ damay bëgg di wax ku may jëmale kanam. de waaw xam nga nga nekk ci mbir téeméeri at ak juróom-ñaar foofu di nax woo ci mënoo cee am. tàngal man ma tàngal man di fres war ngaa xoolaat sa daaw ñetti nag nga yóbbu woon wala juróom la woon. daaw ñett la daaw juróom juróom-ñaar yaar juróom-ñaar ren fu ñu toll. ren maa ngi ci fukk ak ñaar. ren yokku naa ci sama yeneen nit yoo xam ni yàllaa ma boole ñoom. waaw. incha allah bu bu bu mardee daal moom. lépp dina leer émission. sëñ waxal ma ko te sa jaabante ja fa mu ne woon ba léegi. jaabante ja daa gën a yokku. jara jara jeeg dërës dërës. Serigne Baye Géwélu Makan mën nañ koo jox oto te amul carburant. waaw nee ko man kenn. du ma laaj mooy ci ay téléphone di ma jéem a tiiñal man dañ may bàyyi ba ma pare ma jox la ngir sëriñ bi rek waaye kenn du waaw kenn du ma ko def nii boo demee nii day mel na ngaa bàyyi ba caméra yi tàkk pour tiiñal ba man man complexé wu ma noonu dëgg la amul problème dinaa la jox passe ma gàll incha allah man nañ faaw mu def loolu ndax ñu caméra bàyyi Modou Anta di sama xarit Modou Anta waaw nañ bàyyi ba ba màggalu empereur bi passé mais yow lan nga dund ak sëñ bi nag ba bu waxtu bi teroo doon nga wax ci lenn. waaw ma parce que sëriñ bi ko jar moom ma ko ji moom ma ko ji. sëriñ bi moom ma ko ji. yaa ngi doon sa premier ay Sidi Diop ak ñëpp laa dee ah. parce que Serigne Touba. yëpp waxatu bu ma seetlu bu defee nii rek war na. yaa ngi fàttaliku sa première màggal. ndax ndax man damaa bëgg màggal jotee ñu bàyyi lépp. nekk ci. macha allah mooy ndam de. bëgguma bëgguma waaw bëgguma màggal jot. ñu def leneen di ko def. ok bala ñoo jeexal sa première màggal yaa ngi koy fàttali. sa première màggal maa ngi koy fàttali. waaw. ku sonn màggale woon. waaw ku sonn waaye nag màggal gi ma gi ma jukki xam nga man màggal la ma jukki. Mm. màggal bi may def ñuy sàcc sama iPhone 13. bëggoo ma jukki mooy màggalu 2014. sàcc sama téléphone sama kër maam. waaw. sàcc sama téléphone magal 2014 ci magal ci biir magal may nelaw teg téléphone bi ñu sàcc ko. waaw. léegi nga yeewoo. ma yeewu astafurlah non non non ay am na téléphone bi laa fàtte ban fan téléphone la bu seer la mais moom ma ko woon téléphone bi sama jabar ji ma takk tey moo ko moomoon may dem mu aal ma téléphone am ma dem téléphone bi xaaral moo ko laaj ko ban téléphone léegi ñu sàcc ko waaw ma jóge fa rek ci la buntu ambassade Amérique bi. xoolal naa ko doomu jàmbur. misaalu seen bi. man fees na télé. affaire yi ñëw naa déglu la dama koy kii dama dama dama koy bett woo ko téléphone téléphone bi madame Camara wuyu ma bu yëgee ne wax ban màggal ban màggal nga ma aaloon sa téléphone bi waaw ban téléphone la ban téléphone la woon iPhone lan ñu sàcc ko. ah moom la amul preuve ba nga ñibbisee ci la affaire commencé rek affaire yi ubbeeku même weer bi ma dem déposé ambassade ak ñu ma ne coono jeex na. Ah. ma def toog xam nga ban message ngay jàmm màggal amul dara amul dara lu débordé màggal sañse la lekk naan xeeñ lu neex mbégte la ak jàng xasaay bi ak alxuraan karim bu ko fi kenn def yëfi stress ak yëfi dëxañoog yëfi sévère ak matt ak mattoog ay uhu màggal yëfi mbégte la na jigéen ñi sañse lu rafet sañse lu neex moom nga wax. waaw moom laa koy mooy challenger rek. moom nga wax man ngi ciy boole lu takki or ba doyal. magal gi la. la. ku am say or takkal. ku yor sa yére bu seer solal. loolu yëpp ku yor say nag génneel. da déedéet ah, papa du xees. ndax bu ñu bàyyam nag. ay sa baay maag Moumin Camara ñu ànd vingt cinq ak lu ko. déedéet mu nekk xale bu ndaw am jom nag. ma ñëw fa mu nekk xale bu ndaw am jom. bàyyi li nga def kii bàyyam la kii. non non waroo yàq kii. kii kenn du ko yàq kii sama doom la. kii maa ko ngeen ànd ak Moumin Camara maa gis. ànd ak Mouhamed Camara 25 ans dafa tey ñu ngi koy ànd lii boobu ku duggaan Torino mbaa nga dugg Milan mbaa nga jaar Napoli xam kuy Mouhamed Camara tey mu wat rasey sol mbaxana ibaadu bi sama xarit nag ñuy ànd puusi bu amul jom rek kenn du am jom ndax dañoo ko dund maag moom muy sama doom waaw Fadam lan waxal sa interview bi laa wax. bàyyil di ma ëttal mënu maa ngi gis suba àndee si guddi da ngay bàyyi guddi gi tey nañ ko may baal la ngay dégg. guddi gi dañ ko may sawar. tax nga ba mënatuma gis. waay billaahi encaisse rek encaisse rek. tax nga ba mënatuma laa gis saak bi saak yow kër ma saal nga dëkk kii géej yàlla dëkk man géej yàlla dëkk. bàyyi ñu ngir yàlla. man dëkk ma géej yàlla man xalaatuma dëkk géej waay. man géej waay xoolal sa gos bu ndaw la yoroon léegi yokku doon. yàlla teral nga ma ne moom. waaye nag waaye nag Tidiane mu sasu la. jënd na nag wu rëy. nag boi barki Seexul Xadim nag bu rëy la jënd un million quatre cent boole ko boisson bu bëri ndox bu bëri gis muy battre léegi gis naa ko ay sii lay def sii léegi kañ moom ndax la ma jël ko te mi ngi waxaale oto jël leen ko day jëlaat jël leen ko mi ngi waxaale oto mi ngi waxaale oto waaw sànq daal dem nañu waxaale benn Toyota benn Ford Fusion mu ne bëggul Ford Fusion Toyota la bëgg. lay lay la la. kenn mu bu ñaata. ah bu ñaata. 9 millions 500. 9 fi ñu ni nga mën a sa nit. ni nga mën a sa nit lan moo tax koo àndal ñëpp xam ne Bousse kii la àndal. te comme àndal un an wala deux ans. ñu gis njëriñ ci yow ñu loolu aussi. waaw ah, man fu ma dugg dama la fay dugal lu mat da koy mat fu may jaar da nga fay jaar lu may def da nga koy def man daan leen rek waaw leen rek laay bañ ku bëgg ànd ak man doo ma teg bët doo xool li ma yor lu ma la jox jëlal fu ma la dugal nangul waaye bul ma forcé lu ma mënul mën a parce que looloo tax moom eh. teguma benn fitna bëgg ñu ànd xoolul dafa am lu ma am lu ma jaay xoolul ni jaay naa nangam lu may lekk xoolul ni lekk naa moom mi ngi fexe nu mu lijjantee boppam ndax loolu laa ko jàngal fu ñu dem jaaral nii ma jaaral nii. waaw dinaa la woon si mais lan lan moo tax moom mu ne. jaaral nii ma jaar ne am na lu muy tekki. Boucher neex naa àndal. waaw. waaye waaye lu wér bàyyi leen ko moom. loolu daa ko daa daa ko maanaam ko moom. Omar seetaan na vidéo yi Omar seetaan na vidéo yi wuy kay. Amar de seetaan na. mais Amar loolu est-ce que amul ko ko moom. ah moom a jaaxal déet moom ko. lu wér nañ ko bàyyi ak moom. waaw. Ah, ah, bu bu buuse xaalisam kenn du ko xool. lay la jël ngeen xaalis jël na ko mu <laughs> lay buuse. yow li nga bëgg. Wiza a ngay tàgg. waaw mu daal di leen gërëm bu baax. sama xarit nit ku baax nit ku baax. mais nag de yoon nga ma de ceeb doo dëgg doon waajal combat. bi doon waajal combat Balla Gaye bi ñu waajal combat trente jours avant daf ma vocal. ne ma jouru làmb ja ngeen tam nu ceeb waa ji dinañ ko duma dinañ ko daan est-ce que nag buuse lool foo ko tegoon ak fan nga demoon. bàyyil ba màggal gi passé. nga ne. ba màggal gi passé ma wax ci. ba tey nga wax daa am loo ma wax dañ ne ma. waaw dama laa woo. dañ ne ma. waaw est-ce que ñeme nga ma koo vocal ma vocal la waaw di ma tiñal dama laa woon ne la am na ku ne. dafa dindi na duma Balla Gaye dina ko daan. ma ne ko nee ko day fen. ma ne la est ce ma ne ko day fen nga ne ma ñeme nga koo ma la man maa man buuse naa ngi woon naa focal baa ngi ci yow. léegi yónnee ko waa